Come oh, oh, oh, in. عليكم من كل قلق سلام رفق خلق إلى إدوار صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ñu ngi sant yàlla bu baax di ngi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu di gërëm seen xalifa ñoom ñëpp muy Mawlana Cheikh Ibrahim gannaaw loolu aussi ñu ngi nuyu di ziar suñu xalifa xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Niass di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla yàggal ko suñu kanam te dëgëral ko lool ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim di si nuyu aussi di ziar nga xam ne mooy imaamul akbar muy Cheikh Tidiane Aliou Cissé di ko ñaanal yàlla bu baax moom tamit yàlla yàggal ko suñu kanam lool te dëgëral ko ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim donc ñu ngi ñu ngi am mbégte lool di teewaat gi yéen di leen yëgal programme bi nga xam te ni moo nekk suñu kanam muy gàmmu Mbaylar di kañ le 27 avril incha allah fan la ci mbaylaar kan mooy def programme boobu euh, muy Cheikh Baye Hadi ibnu Mouhamadou Hadi Ibrahim ñas nga xamante ni ku ko tudd rek xam ne borom xam-xam la ci kàddu bu neex ga ci lépp moom moo fay teew incha allah dafa ñu li xam ne mooy gàmm programme bi nag nii lay demee bu 17 heures jotee incha allah borom xam-xam bu mag ba dina fa teew dina bàyyi. dafa ñu conférence bi nga xamante ni wax yàlla ba mu ko defee daaw ba ren ñu koy xaaraat ndax euh, ndax xam-xam bu rëy ba ndax xéewal nga fa wàccoon moom dana fa teew ànd ak suñuy buntu ci buntu waa Mbaylaan yëpp ci Medina Baye muy waa Taïba ñangeen yi ñoom ñëpp dañuy def délégation bu forte ñu gertu leen ñu ñëw teew bu ko defee am solo bu ñu guddi jotee incha allah Mouhamed Ndaw dina fa teew ak groupe boobu dinañ tudd yàlla bu ñëpp kontaan ki nga xam ni mooy mu Mouhamadou ah, Cheikh Baye Hadi Ibrahim Niass moom tamit teew fa am solo donc lii daal moo doon annonce bi ñuy jox ñëpp rendez-vous le 27 yéen ñi nga xam ne yéen a nekk entreprise bi yëpp ñu ngi leen invité ko dégg xam-xam dañ ko dégg yàlla bu baax yeneen li ci ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi te mënuñoo teew ñu ngi leen di jox rendez ci chaîne bi nga xamante ni mooy chaîne YouTube wala ci Facebook bi nga xam ne mooy Barham TV Média dina ko def en direct boo xam ne waaye mu ngi fa rek incha allah dina mën a suivre programme bi comme il faut donc ñu jox ñëpp rendez le 27 avril incha allah fële ca Mbaye naan bu soobee yàlla wa axiru daawaanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin